ay jërë ngeen jëf mbokk internet ñuy déglu à travers euh, partout dans le monde rawatina yéen ñi abonné chaîne bu mag bi ñuy wax Galsen People te nag mën naa ne ki lañ indil euh, kenn dootu ko présenté si mim réew euh, jaamu yàlla yi xam nañ ko à travers euh, résultats yi nga xamante ne mi ngi koy am ñu koy wax Serigne Boubacar Faye Serigne Boubacar nag tey mën naa ne war nañ waxtaanee si ñaan yàlla war nañ waxtaanee aussi si faj à distance bi nga xamante ne mi ngi koy def di def ay résultats yu taw féexe war nañ waxtaan aussi si actualité gis na mbir yu doy waar yi nar a xew fii nii si réew mi Sénégal xam naa nag Serigne Boubacar balaa ñu tàmbalee programme dañ lay daal di bàyyi nga nuyu suñu mbokk internet yu ñu seetaan Serigne Boubacar nuyu nañ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 walqaa'imiina wa rukka'i sujuud wa azzin fi nnaas bilhajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin xamiiqin ñu ngi lay fay du nuyu waa Sénégal ak waa bitim réew di rafetlu teewaay bi nga xam ni moom nga ñëw teew si ma teew teew si fii seet si ma waa di rafetlu teewaay bi. Euh, macha allah Serigne Boubacar Faye euh, kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax te nag mën naa ne euh, dañoo ànd ak seen nijaay ki nga xamante ne mën naa ne xam na sa maam bu baax a baax a baax. sa maam mi nga xamante ne mën naa ne Sénégal kenn dootu ko présenté mu nekk boroom xam-xam bu mag a mag a mag ñu bàyyi ko rek may ko mu wax ñu tuuti kan mooy maamu seen Boubacar Faye. waaw ah, kay asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen nuy di leen gërëm di leen sant. xam naa ne boobu kar mi ñëpp ñi gën a bari xam nañu maamam Umar Jam kenn ku ne xam nag ana béréb boo xam ne tey béréb bu mag la ah, jëng ba mu ñëw fekk benn kàddu moo fa nekk mu xool ma ne jëng kàddu bi tekk muy am fii de ay terrasse ñooy ñooy am fii boobu jamono bu yàggal la dégg nga wante Boubacar yaayam baab ah, yaay yaay kenkaan mooy juru juru juru yaayam koo kenn boroom xam-xam la woon mayoon nañu garaat fu mu mën a dugg mbax na du ko du ko du boobu kar te Boubacar nekk na boroom xam-xam Kalle Lawan nekk na boroom xam-xam xam naa nit nit dëgg te ñi mu seetal yëpp ci sama kanam di di ñëw moo ñu ngi ko laajaat dolli ñu walla defal nii defal nii waa kenn ku ne di wax ne Boubacar dolli ma dégg nga Boubacar yàlla moo ko may loolu meram sax baaxul bu duggee ci ñaanal nit mosuma gis ku ñëw ku mu ñaanal be bay gisul mu ne mu ne gisuma yàlla moo ko may loolu ñi may ñi may déglu ñëpp kam nañu ko ñi defante ak ñoom ñëpp ñu ngi may déglu kam nañu ko Boubacar nit dëggal la te de ma nekk ci moom bu la ñaanlee boo boo ko waxee nga ne gis naa nangam li nga waxoon nangam nag ma ne du yàlla rek du ci man di yàlla rek yàlla rek lay ñaan kon nag maa ngi lay sant te la gërëm moom dama doon dem di tukki dem fu ne mu ñëw mu nijaay bul dem fenn danaa jënd ay nag jox la bee ren ay kaar yama yor fii moo ma ko moo ma ko jëndal mu ne ma léegi mbul demaat fenn dégg nga kon nag ak ñi mu ñaan la ñoo xam ne amuñu woon dara lépp gis naa ko am na ñoo xam ne sax suñu côté nga xam ne foofu la borom xam-xam yi jóge am na ñoo xam ne dañuy jóge foo ñëw ba fii di di di di di wut ñaan ci moom kon nag Boubacar dem koy sant waaw jaar jaar maama hmm. Ah, Umar Jam Siré borom xam-xam la boo xam ne fu ne jaar na am na am na benn bis ay sillam ñu ruural keneen keneen ki keneen ne borom xam-xam la woon te Umar Jam Siré ku mu dajal nangu nga waa jëng bi mu tase kooku bee yàlla def ñu ñu bee bee genn àdduna ñoom ñaar kenn ku ne bay ba kaaji guddi ñu coow daal ñoom ñaar bi ñu bi ñu jàppante bis hmm. ñoon suba suba suba daa ngi gis suba daa ngi ñu toog ba kaaji guddi hmm. ndek ñoom ñoo bokk fi ñu garab bi ñu jëm hmm. kii ñëw Umar Jam si la ñëw toog di commencé rek keneen ki ñëw ma ne ah yow keroog lañu joxante loo ko léegi ba ñu génn àdduna ba seen seen doom sax di ñoo karitoo ba léegi waa ñoom Ah, dañoo amoon kam nga de Oumar Diam Siré dafa doon wax loo xam ne lii lii ba naara am sobo bu ko waxee tey booy ba nga dellu sobo daañu ko gis loolu yàlla moo ko mayoon Oumar Diam Siré boo boo wàccoon logo laajte kër Oumar Diam Siré laa jëm daañu la wax daañu la tegtal daañu tegtal foofu mooy yoon bi yoon bi ndax ndax li mu siiwoo woon ci ci dëkk bi yàlla moo ko mayoon loolu ay sitaameen noonu la jënga sama kenkaan mooy sama pap moo jur yaayam kookeen ne ah, kii ba ma judd boobu mu ngi naka liir de comme ça ni liir nu muy jooye moo ne kii kii jël na sunu kam-kam boobu mu ngi mu mu ngi mu ngi judd rek nii waaye ba mu jooyee rek moo ne kii jël sunu kam-kam ñëw kon nak kii am naa am am nañ ci mom yaakar deng kon kay jërëjëf jërëjëf mm, jërëjëf man na dama degul wala ah, ngeen baaxal ma nag <laughs> eh, eh. Eh, macha allah papa kaddu gi am na solo bu baakha baakha bax a bobu gar nak xamna rek dañuy ñew nak commencé waxtan bi si li nga xamantene ne mën ne sénégalais mom lañ la gëna xam mm-hmm. muy wàllum set set bi nga xamantene ne na set bu cher la nak mais teewul sénégalais yaa ngi ñëw nga leen di seetal ñi gën a ñëw nga leen gën a seetal sëñ bi lan mooy secret bi ba sa ba koo seetal da nga koy gis. waaw xam nga mooy li may faral di wax rek ijaaba te nga nangu foo toll di jàng alxuraan gis nga alxuraan bi ngay jàng leeraay bi xam nga taayal waxoon naa boo ubbee alxuraan rek di ko xool te kiiwoo ko comme ça te jàngoo defoo dara sax leeraay bi day génn day génn. muy comme ça muy dugg sa bët kon nga xam ni alxuraan dafa am lu ci yàlla def dafa am leer boo xam ni xoolal yàggee mm-hmm. ba léegi chaque at day gën a bees kon alxuraan dafa am macha allah dafa am lu ci yàlla def te boo koy jàng dafa am looy yëg boo koy déglu tamit dafa am looy yëg kon loolu de boo koy boole ci say mbir yàlla xam day dem ba nga am ijaaba boo xam ni boo ñaanalee nit day gis résultat boo ko seetalee mu dem ba gis li nga waxoon mu gis ko Set bi ñu bari dañuy wax bi dafa seer mais lum seer seer lu am solo ba am solo mooy nit ki li muy wax na fekk mu am na fekk bu la seetalee dina la wax lépp man duma la laaj tur duma la laaj sa tur sa tur waajur duma la laaj sa dooma jox dara yow kay nan wax li ñuy wax ñu jëflante li ñuy deflante ma seetal wax la loo xam ne du deñ nga dem ba gisal ko sa bopp xanaa moo gën a wa do laaj nit turam xam nga am na xam mënal mun na laaj sa tour dem si benen serigne wax setal ma ci diw man duma def non man dang may wo mu xolal la wax la lepp lo xamni dafa nek ci yow lu am solo bu am solo moy ijaba. ñi ngay gis ñepp ñuy gis lima lain leen waxoon yàlla xam nañ lu ko waral rek ijaba ak wëru wëru si sun borom ndax man du tax ma naagu mooy faral di wax rek dama xamni lepp lu antu yalla. la ndaxte am na koo xam ni moom ëppoon xam-xam sama maam boobu ni li ñuy wax ci moom yàlla xam na ni waxuñu lépp sax ndaxte am na jamono boo xam ni dafa dem bay bëgg comme ça génn àdduna mu ni àjjuma bii ma fi bàyyi yàlla xam na ni nii la ko waxee sama magu papa moom ko doon àjjuma bii duma duma fi bàyyi mu ni ndaxte na ngeen na ngeen sa kii wut ay sagal am nga ay gerte lan doon kii pour defal ko ay sagal pour am diwlin na ngeen am ki bu ba bari ndax ngeen xamni ni da ngeen di am gan da ngeen am ay gan ta jour vendredi bobu génn ko kon nga xamni ni ñoom danoo xam-xam bo xamni ni mo leen ko jaglé yalla mo leen ko jaglé won ta lu am solo ba am solo moy lo am xam-xam am xam-xam da do wax deug yalla xam na ni kenn du la ragal xam-xam day and ak deggu bo comme ça bu boobaa sa xam-xam dina feñ mais bo bo deggo comme ça bo deggul nga am xam-xam de kenn du la ragal ndax dañuy wax ni kuy fen mom do mun ci mom dal nit ki bo deggo rek yalla xamne am lu la rusé kon nak lu am solo bu am solo moy deggu ijaaba di jaamu sun borom boko defé kep koy defal rek yalla xamne ni day aajom day faju hmm. macha allah euh, macha allah Serigne Boubacar fay kaddu gam am na solo bu baakha baakha baax xamna rek kep ko xamante da nga bëgg jëflante ak mom ci walum set da ngay woote ci numéro yoy af ci souf bu gën dégënté rek sa aajo dina faju ñu jël suñu benen question rek muy faj à distance bi nga xamante ne yaa ngi koy def te jamono ji mën naa ne yow yaay sëriñ bi nga xamante ne yaa dàq faj à distance. Mm-hmm. waaw xam nga am na benn femme boo xam ni. mbiri seetaane da ko jàpp. boo ko mbiri seetaane jàppee. léegi mu ni ma naa ko kii comme ça ma ni ko léegi nan ngay def comme ko yow ñëwoo mu envoyé ma xaalis bi. Mm-hmm. léegi da foo teg da ngay teg téléphone bi. Mm-hmm. fii fii métti. ma koy mocc ma ni fan la toxu mu may wax fii la toxu. ma moccaat foofu mu ni ma fan la togo mu mu toxal tëgal téléphone bi xoolal loolu mbiri suñ borom ba ba si yàgg mu ni ma ah muy wàcc na de fenn may tewtu ma ni ko indil ndox nga jël ndox comme téléphone bi nga teg ko ci ndox fii kopp bi ba ko ci tegee ma ñaan ci li ma ci ñaan ma ni ko na nga ko solmo na nga solma mu ni ma bët yi day sonn te tamit dafa jàpp yaram bi man tamit ma ni ko léegi da ngay da ngay solmu ba pare nga diw ko ci nga diw ko ci bu ko defee lépp loo xam ne dina yàlla xam ne daf maa woo mu ni ma wàcc na te loolu mbiri sun borom la te giseewun yàlla xam ne après comme ça audio yi ñu ngi fi fi mooy waxee wallahi wàcc na kon loolu du tax ma naagu tamit dama xam ne lépp borom la xam-xam moom lu am la ku koy weddi dan laa jàpp dan laa yeewul def la liñ lay def yóbbu la ci armée def comme ça yóbbu ay ñaan ci armée li def la liñ lay def mais képp koo xam ni ndaxte des fois di nga nekk ay tolof tolof yoo xam ni ndax yàlla xam ne bari na ñoo xam ne ñëw nañ ci man nekkoon ci ay tolof tolof ñu defoon leen ay liggéey yoo xam ne duñ am dara ndaxte am na liggéey yoo xam dañ koy def ci mbir lu ñuul lañ koy def des fois ñu rey nag bu ñuul pour mal sa aduna loolu lépp boo ko seetee ba xam ni kii lu ñuul lii lañ ko def da ngay am foo ko jaaree nga dindil ko loolu mooy tax fépp foo xam ne defoon nañ ko ko mu koy teree am di nga def loolu ba dindi ko ba defal ko loo xam ne day am te man yor naa secret boo xam ne yàlla xam ne bu bu ma la ko jëf boo ko jëfandikoo di nga am alal ci lim kenn du xam ab limam ku dul suñu borom alal kenn du xam limam mu alal ji ku dul suñ borom kon nga xam ni secret dafa am te nit ñi dañ koo amoon mais xam nga léegi ñu ci bari dañ cee dugg ku ne mu naan day day ñaan mais yàlla xam ne dama leen di wax lépp loo nekk te du dëgg yàlla xam di nga weeru da ngay weeru lu am solo ba am solo mooy dëggu rek man façon kii xam nga man xale la te yàlla xam ne yor naa sa gàllaaj boo xam ne su ma ko suuloon foo xam sama noon bu fa jaaree day dee hmm? mais du tax ma def ko bu fekkoon xelu xale jàpp na ma nag dama koy def mais yalla xam ne ni dox ma def ko te yor naa kii xam nga nit ki lu am solo bu am solo déggu aar sa bopp def loo xam ne képp koo xam ne mu ngi lay jéemal du baax ci moom loolu rek moo am solo. Mm-hmm. macha allah euh, macha allah Serigne Boubacar fay euh, kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax xam naa rek ñu jàll si nag suñu beneen question rek muy wàllum nopp Serigne Boubacar li may dégg nopp bëri na mën naa ne Serigne yëpp ñu ngi naan nopp nii nopp naa mais est ce que nopp lu wér la. waa nopp nopp lu wér la te si poli la la la la opé ndax ndaxte bo démé bo démé ci poli tay dan dañ laan wax comme ça des fois bu féké mbiri jat affaire bi a dañ koy jaaree ci jat te buñ xassé ba jat def li ñuy def lu mënti mënt lo loo métti yow da ngay da ngay da ngay ñëwaat buñ ko jaaree ci saalaali Muhammad waalaali Muhammad hmm. ah ñu ni tire dinder. tirte dinder an kaari mi tire mo wéy and beej ba ila akhir ba mu jeex nga fas li ngay fas am fuñ ko def yalla xam na ni day ñëwaat loolu nag poli ya, poli la ko yàlla may xam-xam dafa am de man boo gisee des fois ñu bari yàlla xam na ni damay gis loo xam ne dafa téye man ma xam ne diggante bii bind naa mais bind bi kiiwul comme ça kiiwu ko ci jàtt laa koy jaaree boo gisee ñuy dem ba gisaat des fois ci jàtt laa am na ñoo xam sa duma jaar ci am na dama leen di bindal rek ndax am na ñoo xam danoo danoo am bopp am na ñoo xam ne amuñu bopp mm-hmm. ñu am boo bindee rek jàpp mais ñu am bopp yi faa nga jat def ay mbir comme ça nga jat def li ngay def mm-hmm. nga soog leen a jàpp ndaxte ñu bëri mm-hmm. ñu ngi yóbbu seen ndaxte damaa am cas yu bëri yoo xam ni am na dañoo yóbbu seen soxna bopp bitim réew ñu war leen nin deen comme ça nin leen doon toppatoo ñu bàyyi ko loolu nag lu lu ëpp lu comme ça nit ki jigéen sa soxna bala nga kaa indi foofu faa nga am loo ko def ba ba bu demee xelam ci yow rek lay nekk. Hmm. ak fu mu mën a dem di liggéey xelam comme ça du mën a du mën a nekk lu dul gis la kon loolu lépp dafa am te pël yi koy def xale bu ndaw sa day juddu commencé di ko defal ay mbir loolu mooy tax mu tee koo xam ni képp koo xam ne mu ngi koy jéemal du ko mënal dara dem fu ne du comme ça bu sëriñ bi demee sa di seet du gis. koku dan ko jugal ba muy xalé kon poli dañuy gaaw jugal seeni doom da day gis xalé bu ndaw am xar yu bari am ay bay am ay ki lu ko waral teel juk nit ki sa yaram ki saf ndaxte da ngay da ngay sangatu daf di nga am fo tollu fo xamni ni dara munu la defal ludul sangat dara munu la defal ludul ay sarax kon amna na xamni fo dang fay tollu lu rek mo la mën a defaral. Euh, macha allah Serigne Boubacar Faye euh, kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax dañuy jàllale nag suñu beneen question muy wàllum ñaan yàlla parce que mën naa jamono ji euh, ñu bëri ñu ngi naan est-ce que ñaan yàlla jamono ji Serigne si seen ñaan day nangu. te nag ma gis koo xamante ne ah, mën naa ne vocal yaa ngi noonu nga tegal ma ko sànq. ay ay ay yu doy waar ñi nga xamante ne da nga leen ñaanal. bu ñu gis. gis si résultat. ba yow sa kër gi nga xam yaa ngi koy tabax. fii nii moo la koy yeggali ba mu jeex te bëggul kenn laal si dugal si loxom sëñ bi lan mooy secret bi ba koo ñaanal rek mu am ci tawfiix. waaw boo gisee loolu. xam nga lu am solo ba am solo. mooy li ma lay wax déggu. te nga bañ a yàkkamti tam comme nii bu xool ngir ngir ëllëg. comme ngir tey xoolal ngir ëllëg ndax bu fekkee ngir tey ngay xool da ngay wax ni kii na ñëw rek mu jox ma xaalisam ma ma lu ma ci am jël te loolu bis xoolal al mawtu laa yaati illaa baktatan dee day ñëw di bette de du ñëw lu dul day bette kon li nga xam ne day ñëw lu dul day bette xamoo fan la lay fekk xamoo dalay fekk ngay nelaw xamoo dalay fekk ngay jaamu yàlla xamoo dalay fekk ngay moy yàlla kon loo ciy mënti def nay rafet ndaxte am na koo xam ne dañ koy dañ koy kii ci ci arm ci kii ba ci biir bàmmeelam dañ koy yeew bu fekkee dafa yor fii ay bor dañ koy yeew ci ci biir bàmmeelam lu dul ñi nga xam ne ay mbokkam dañ koo fayal boram mhm. ñu soog kaa yeewi kon xam nga yore bor doy na waar kon se am na sëriñ yoo xam ne ñu yore bor te boo defalee nit mu lay topp jox ma sama xaalis mhm. ah, te ju kiiwoo ko ko kon boo boo deewee rek dañ lay yeew ndaxte xaalis jaamul ngay li lekk lu lewul mënoo lekk lu lewul ba pare bëgg ñaan yàlla mu mu kii ndax am na xadis boo xam ne day day wax munoo sol lu lewul. di naan lu lewul di ñaan comme ça di di lek lu lewul ba paré mu bëgg ñaan yalla mu nangu munul nek fa nga lek lu lew nga nga ñaan sun borom mu nangul bo gisé ñi nga xamni dañuy ñëw di man son ma defal leen ba gis façon ñu contant ci man ba façon teranga bu ne ñukoy indi kër gi nga xamni ni koy tabax ma ni am na dafa dafa ma wax man dama la bëggono dimbalé ay toni ciment ma ni ko ki nga xamne moma koy tabax neena bugul ken def ci dërëmam mom kese mo bëgg dërëmam dem ci kon lolu amna lu ko waral jup rek mo am solo ak boko defé rek yalla xamna ni koy defar day gis yow muso fo muso fe ñew lu du bes rek nga fi fekkat lo fi fekkat fi fekkat lenen lu ko waral jup ak def li ngay comme ça son ci li ngay def da bu fekke da ngay da ngay nit da ngay jël xalasam ba pare tëdd di nelaw mënul nek faa nga sonn ci mbiru jaambur def ci li ngay def man damay dem ba gannaaw Louga sama dëkku maam kii foofu foofu la nekk am na koo xam ne dafa maa vocal mooy ki nga doon déglu léegi ki nga doon déglu léegi daf maa vocal mu ni ma damaa dégg ngay tudd ay ngay tudd euh, Omar Jamsiri te kooku damaa dégg samay maam te kooku yàlla xam na ne xaw ma ko Mauritanie la nekk mu ni damaa dégg sa samay maam ñu ñuy wax ay waxam ñu naan borom xam-xam la woon xam nga man dama dul teg mbiru jàmbur ndax man bugguma nit ñi xamal nit ndax nit mun naa ñëw ci yow mu fekk buggul nit xamal ko léegi tey boo tegee vocalam lu dul mu wax la ko loolu mun naa indi ay mbir moo tax man duma teg vocalu jàmbur mais lu am solo ba am solo ay témoignages yoo xam ni mu ngi fi ndaxte des fois bu fekkee yow boo defalee nit mu du gisul. mu wer la kon yow tamit boko comme ça bo boo defee bu la neex sax nga nga ko nga ni defal nako mais man duma def lu sutura mo am solo wa man satara musliman allah fi dunya wal akhir ku sutural nit yalla sutural aduna ak al akhirah motax may sutural nit ni kon lu am solo ba am solo nit ki sa bo bu fekkon da nga kaa xamal dara di ko ki nang ko sutural nang ko sutural ndax lu nga koy sutural bu ëllëgee ñu sutural loolu rek moo am solo man nag nekk naa koo xam ne fu ma nekk nii xam naa fi may teg sama tànk xam naa ci li ma nekk ndaxte xam naa li ma man xalela laa xam naa am na fu ma yàlla teg ndax ay kilifa ñoo may yaakaar kon loolu du ci man suñu borom la.

Mhm. pollo en dum we naaki mhm. ay ndin cundi wok al waɗi hen wok al waɗi hen kala kala mo ganduɗa a moni ni sa renaki ma kala mo ɓadidirɗa an sabatum ɗum bu fekente ci wolof mhm. amna yo xamni comme ça sunguf bi boko sango boko sango tay bo tey sa sa papa mi nga xamni mo la jur nama yalla bal ci bat bi bo nga fete ko ci kaw dafa am loo xam ne dafa nekk ci sunguf bi dafa doy waar te tamit dafa ànd ak benn kii boo xam ni ñu koy wax benn semmiñ te semmiñ boobu xam nga semmiñ day góor mais kenn du ko góor day tax képp koo xam ne mu ngi lay jéemal mu ngi ci danger ndaxte lu tax mu ngi ci danger semmiñ day góor mais kenn du ko góor loolu dafa am ci lu yàlla def ci semmiñ boo ko se boo ko kiiwee dalay aar ndaxte liñ ciy boole dafa bari dañ ci boole xeeru tiim dañ ci boole semmiñ boobu bu ko def boo ko ken kenn du la mënal dara képp koo xam ne moom lay jéemal du baax ci yow te damit lim àndal dafa bari koo àndal yow yaa ko féete kaw kon nag bu fekkee xam-xam rek mu ngi ci pël loolu yàlla may na leen ko mhm. wa mooy li ma la wax rek mooy bi bi ma la wax rek boobu kaaraange la tey tax képp koo xam ne ngi lay jéemal mu ngi ci danger te dalay aar mm-hmm. te dalay yëkkati mm-hmm. day tax koo àndal mm-hmm. yaa koy féete kaw macha allah euh, macha allah Serigne Boubacar Faye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax daanaka nag waxtaan waxtaanee lu ñu war a waxtaanee yëpp mën naa ne lu dul si nag bi xañu si cin bi euh, xam xam naa ne xam xam bi bëri na mais mënuñoo waxtaanee lépp parce que waxtu xam na la tënk jël nag suñu question actualité rek mën naa ne jamono jee passé dëkk bi xawoon na tàng. manifestation yi am na plus de ay morts yu bëri sëñ Boubacar. malade la rek avenir Ousmane Sonko parce que dafa melni ni euh, xawna xawna yaq parce que 2024 lañ ko doon xaré mais ñu melni 2024 2024 du nek candidat euh, lan nga gis si mbir yoy wa la wax rek xam nga même Macky donte sama mbokk la warna naa xel amna ko xamni boko am lo xamni dina wàññeeku ci dekk bi nga bañ ka def mais tamit. Ousmane Sonko bu fekkoon nekk na ko xamni ni tek, tekk yàlla xam ni bu nekkoon bu defon tek rek yalla xamna ni ken comme ça rewmi dina dem ba kiko ndax yalla may na yalla may na ay mbolo yalla may def amna lu def ci mom lepp lu mu wax nit ñi def ko tay bu jëndon sa kam ben kamil nga gis ku ne même ku jangul jënd kamil kon lolu yalla moko def ci mom am na benn jour damaa tëdd gént ko boobu nekk boo fekk na tolof tolof yi kiiwagul ma xam ni ma am fu ma gisee man fu ma gisee samay mbir am benn kilifa bu mag kii sax xam na ko mm, ma wax ko ko ma ne ko damaa gént mu nekk ci kaw mu teg ci kaw lal sama comme ça ci lal bi ma teg ci suuf bu ma ko géntee léegi mu mel ni ku jaaxle ci ci ci kaw ci fu mu tëdd. léegi ba ma ko waxee kooku sëñ boobu te yàlla xam ne kooku boroom xam-xam la mu ni ma loolu kooku dafa dafa ñëw ci yow pour pour di comme ça pour di lay wax njàqareem mais dafa yéex a ñëw yàlla xam na ni sëriñ boobu loolu la ma tontu dafa bëgg a ñëw comme ça dafa bàyyi ba mu affaire bi kii mu soog a bëgg a ñëw ci yow yàlla xam na ni loolu la ma wax mu ni mais dafa yéex a ñëw. te ni ma ko gisee ci gént bi dama ko cee yërëm yàlla xam nag dama ko cee yërëm kon luñ mën comme ça ñin ni comme ça ñi ko xam ne dañ doon wax sëriñam la ñoom ñoo ko waroon a kii ñaanal ko def li ñuy def mais gis nga maki? Maki bàyyiwul boppam de Maki am na lu mu àndal de te boo gisee moom bariwul comme ça bariwul lu muy tontu lépp luñ koy kii du bari lu muy tontu kon lu am solo ba am solo kaaraange xale bu ci amul kaaraange yalla xamna ni du bax ci yow ndax te lepp lo xamni dafa wara dem ci ñe ci yow lay del ndax sacrifice yu doy war yu ñuy def motax kep ko xamni de ni nga ci dana laa sacrifier moo tax nit ñi wara moytu fagaru def ar sa yaram ba nga xamni ni am xamni bu ñewon bu demon bay jep ci day wañeku demi fenen. mais du ñew ci yow kon nit ki warul def sa bop lo xamni ni lu jug rek dal hmm, nit da nga wara ar sa bop

ñu yóbbu ko mandat dépôt est-ce que est-ce que nombre est-ce que nombre boobu noonu lu wér la kaaraange boobu. waa xam nga mooy li may wax rek. gàllaaj am na. mais lépp looy def rek boole si suñu borom boo ko defee rek bu ëllëgee bu yàlla moo la ciy fekk si ndax boo boo waxee am naa loo xam ni ku ko takk doo dem kii bu soobee suñu borom est-ce que xam nga fi may waxee bu boobaa bu loolu amee da nga xam ni yàlla moo ko kiiwul. ndaxte lépp mooy li may wax rek lépp lu antu suñu boroom la lu antu suñu borom la may ñaan rek yàlla def mu génn foofu ndax foofu kenn du fa yéene nit ndaxte lu am solo bu am solo ni ma ko gisee moom ku baax la waaw xam nga nit ki moom da ngay wax ba wax dugal la mais lu am solo bu am solo nag mooy que gàllaaj baax na mais du ma wax amul am na de. yàlla xam ne am na galaaj boo xam ne doo fa dugg am na de duma wax amul nag mais lépp looy def rek boole ci suñ borom macha allah macha mm. allah euh, Serigne Boubacar Faye euh, kaddu gi am solo bu baax a baax a bi Amna na solo bu baax xam naa rek duñ def lu nag bàyyi nga tàggoog suñu mbokk internet yi nga doon seetaan. waa li may tàggoo mooy que yal na yàlla def ci mi jàmm mm. ndaxte liñ gis ni faa ñu de def ay sarax. faa ñu jug def ay sarax ndax li ma gis ci réew mi doy na waar sacrifice yu doy waar yu fi nekk di di di suul loo xam ni deewagul loolu lépp dafa doy waar ci réew mi waaw mooy mais li may wax rek ku ne bu mënee jël galaas suul ko ci buntu këram na ko def waaw suul ko ci buntu këram loolu dina indi jàmm ci réew mi di nga dina tax sa bépp musiba boo xam ne ñëwoon demoon na bay ñëw fii yàlla kii ko mu yàlla wis ci ndox mu sedd mais li may li may tàggu mooy yal na yàlla def ci réew mi jàmm nawet bi nga xam ne moom lañ jëm yal na yàlla def mu di mu nekk ci gën gin nawet si barke Seydina Muhammad yàlla mun na ko te yàlla dina ko def incha allah. Mhm.